الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna naqar moo fés ci xar kanamu képp koo gis ca ña nekk nag ca garage ligne Tata 37 la ko waral nag mooy seen naataango bi doon wuyoo ci turu Mayakor Ndiaye moom nag moo ñàkk bakkanam ginnaaw bu ñu ko agressé foofee ca VDN 3 moom mii nag ñu ngi ko yóbboon foofee ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff Euh, ñi nga xam ne nag ñooy mbokk yeeg xarit yeeg am ngi jàmm yi yëkkati kàddu seede di wax ni daal ku fonkoonub liggéey la te ku amoon jàmm ak ñépp la euh, ñoom mbokki safóoram yi nag nee nañu daal bu fekkee ni kilifa yi taxawun ci seen kaaraange ñoom daal bañuñ ci sax nag ba ci dakkal seen oto ya nga xam ni daal ñu nga koy yóbbu ci yenn warab yi nga xam ni nemmeekun fa kaaraange muy nag naqar ak tiis bu fees nag ci xar kanamu ñiy liggéeyee ci ligne 37 bi la ko indi nag di seen mbokk moomee ñu àgg agressé di Mayakor njaay ba mu daal di ñàkk bakkanam Mor Mbaye Ali Imran TV jërëngeen alhamdulillahi alladi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonné ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna